Euh, ñu dem ci li nga xam ne moom mooy euh, ki ñu faat fële ca démb ca Malika bu fekkee pare na rek alaaji du ñu dem xoole ci as lëf ci ab reportage de dellusiwaat waaw xew-xew bi de man vraiment bi mu amee toujours toujours jour bi même dañ ma woo téléphone wax ma ko dafa am ñu mu àndaloon dem mais bi muy ñibbisi nag ver quatre heures du matin ci lañ wàcc oto bi rek ñu songu leen te ñooñu ay jaase lañ yoroon dem si ci oto bi ko wàccee woon dañ ko gaañ après bi ñu ko jëlee yóbbu ko hôpitalu Kër Massar après ñu jëlee ko fa yóbbu ko Caaroy mu yàlla def nag tey jii mu ñàkk bakkanam ci ay vers quatre heures du matin du soir lañ jot xibaar bi na Ibrahima Seye ñàkk na bakkanam vraiment mooy affaire boo xam ne bu metti la te ci conseil de quartier la bokkoon ñu bokk di liggéey liggéey boo xam ne ni koñ bi vraiment bu am solo la njàqare la ci Ibou Seye bi nga xam ne nii dem na ci demin woo xam ne nii u naqari ñëpp la quartier bi yëpp tey jii jaaxle nañu jàq nañu tiit nañu parce que tam lu mel ni am fi nii ah kenn ku ci nekk da ngay xam ne lii dal sëy say mën na la daal suba sama genn wàll la woon avant muy faatu tamit moom wax naa man ndax bi ma ko yëgee ci fajar laa ko fekk hôpital boobu dogagul ma laaj ko lii ndax yow ñu la def nii xàmmee nga ci kenn mu man xàmmee mu ko waaye daal gis naa ci ku ponkal koo xamante ne ca kaw la nekk mu ngi sol benn tërëy ak camouflé daal ñoo ma def nii escanté nañ ma trop man bi ma ñu man mi ko tiim nag gis nañ ko def man dee mbett ma ndax gis naa loos neewi na néew boo xam ne jaaduwul bët bi noonu faar gi buy nooyi day mel ni dara da koy jam fii itam ci kaw bët bi bët bi noonu mel lañ ko fa dóor lu mel ni jaasi wala dara daal loo xamante ni daal dagg na dagg bu metti ak ni kanam gi nee woon ak ni mu nee woon man dunda moo ma doon bett waaye dayam bi bettu ndax nit ku baax la moo doon secrétaire commission jumaaj commission dëkk bi te ku yaru woon ku yar njabootam la ku doon dox ndànk la di wax ndànk donc may wax ne sunu quartier bi actuellement nii ku ñu fi mën a dimbali li ñu jëkk a mooy sécurité lamp yi ne ci koñ bi di tàkk sax suñu bonne volonté ñoo ñu koy may ñu mën ko taal donc kon xam xam ne nii lëndëm na lu ne mën na faa am ndax dëkk bi dafa yàqondoo adduna bi léegi doo xam yi xew ci dëkk bi lan la xamal ne kii jóg ba ci njabootam ak njabootam gële nga xëy boom ko nii te xamuloo ci ban condition lañ ko boomee metti na voilà mi ngi noonu assan lii moo xew foofu la ca Malika Montagne mooy dëkkandoo bu nekk foofu la daal boo xam ne man <clears throat> góor gi faatu ku ma xam la fa ma doon ñawee ay jamono 2016 2017 euh, kër ga ma doon fanaan di kër borom atelier boobu ak këram ñoo dend soxnaam mu mi ñu faat moo ñu daan jaay ay juillet ki dafa yëf mais li gën a doy waar nag xam naa Modou boo ma illustré les vidéo bi bu ko defee pour war ni la foofu dafa doy waar de après ma ma ma wan la euh, bu illustré bu Modou wanee vidéo rek. pour lu xaw a doy waar ci koñ boobu ak la fa xew lépp man ba ma fa jógee 2016 ba léegi pour man ak coppite am na bu dee Modou jege na la bu bu wanee vidéo bi euh, voilà xam naa dafa sori Modou. Hmm. Modou su fekkee jege na rek soo ma ko wanee Assane dinañ ci ñëwaat nan nga gisee manque de sécurité bi am rawatina góor gu demoon ci meeting ba dëpp. Hmm. ñu déposé ko fi ñu koy déposé fi muy wàcceeg fi ñu koy songee benn la. Hmm. waaw loolu de day faral di am ci Sénégal. Modou xanaa dafa génn non non bi laa wax Modou bi nga teg hmm. sànq. voilà kii mooy waa ji moom photo waa ji wan rek. mais vidéo bi quoi ci bisimilah. Ah. man kii lii lii ko dal nii du benn yoon bii mu am fi. waaw. yaakaar naa ne mën na ko ëpp mais ñaare ñaareel bi yoon moo nekk nii. Hmm. yaakaar naa waa Pastef defoon nañ fi meeting suma ma am soxna su organisé woon xuma Kër Masaar googu doon ñibbi. Hmm. waaw ñu rey ko. waaw. waa ci jamono waa dëgg la. maa ngi koy ah, bokkoon na Pastef demoon na du ñibbi na ñu rey ko kii bokkoon na Pastef demoon na si lu mel noonu dem na ñu rey ko waaw ah, agresseurs yi nag ñu ci réew mi bari lool waaye nag agresseurs yi moom euh, gaaw ñoo rey ndax bala ñoo rey dinañ xeex ak yow wala ñu laaj la nga daal bañ suñ la laajee li nga yor nga bañ mën nañoo xeex ak yow rey la waaye agresseur bu tasee yow ni la indi sa téléphone nga jox ko indi sa calpe nga jox ko. Hmm. loo yor nga ni yoruma dara ñun la laggal. voilà nga baal ma ñu laal doon wan fi mu doon xoola boo xoolee vidéo bi euh, gis nga vidéo bi xam nga ban lumière moo fi ne. Hmm. lumière caméra bi xoolal li ne maanaam arrière plan wu vidéo bi. Hmm. amul benn lumière dul ay fiili kanaali euh, xëcceeg yii koñ bii nii la mel. maanaam bu timis xësee jot. lamp boo fa gis muy tàkk boroom moo ko def ca buntu kër ba. te am nañu maire am nañu yëpp. loolu rek laa bëggoon a wax ci bidoo am na solo mais mii ne mii ne lii nag man teguma ko mbirum sécurité quoi. Hmm. waa dama ko teg daal mbirum mbirum doy waar moo xamante nii am na si réew mi ndax wax naa la ko sànq lii du benn yoon bii ñaareel bi yoon. ñu dem si ndajam politique. Hmm. dem ñibbi ñu ray la benn. beneen bi agresseurs yi du ñu agressé nit ray ko si kaw nga lànk wala nga xeex ñoom te kii mag la mun a xeex kenn. waaw dañ lay laaj. waaw ay ponkal moom kagalu. Hmm. mënuñoo xeex ak moom ba rey ko si nangu alalam. kii boobu ba mu xëyee sax mu daanu nga làmb ay poosam jël la nga yor dem. kon lan moo tax ñu rey ko yeneen ak yeneen ginnaaw yoon a ngi enquête nañ bàyyi yoon mu def liggéeyam ci loolu yi. macha allah waaye daal gouvernement bi barki démb rek lëx ngi koy wax biig policiers yi wàcc nañ terrain ba ramasse ay lëx ak ñeneen ak ñeneen. moom waaw. comme que ñu ngi wàcc ci terrain bi ramasse nañ dem si gox yu mel nii ñu fay ramasse nit ñi bu baax a baax a baax a baax tey raafal tey xool ñi ñu war a ndax ki nga war a ramasse xam nga ni kii carrément boo ko ramassé waroo koo bàyyi ndax ñoom yàlla may na leen xam-xam boo xamante ni bu ñu jàkkaarloog nit ba nga xam ne kii bandi la. kon bandi wërtata am Dakar. Mm-hmm. waaw bandi wëratu fi am. si kon nag nañ ñun yokk doole. ñu gën a taxaw nit ñi. d'accord alaaji muy lu doy war lu amati ci Kër Massar kii kenn la ci bokkoon ci magi Pastef yi amoon solo lool foofu jiite woon département bi ci yu bëree bëri mm-hmm. moom daal moo jógee cib euh, ndaje ginnaaw ba mu ko bañ ko déposé ci araba fañ ko fekk agressé ko ba ci la ñàkk bakkanam d'abord ñu ngi koy ñaanal di ko ñaanal fa mu jëm yàlla ko gënal fi mu jóge aussi euh, di ñaanal tamit ak njabootam sunu borom may leen xolub muñ mu nekk loo xamante ni lu metti la mais seen insécurité tamit aussi tamit euh, mu ngi ci parce que bu fekkoon ne kaaraange am na peut-être fañ ko defee mhm. am na yu kii souligner sànq ñu mm-hmm. ci mel ni lumière ak éclairage ak yenn yi. wallaay wallaay. parents saa dañ lay otal bàyyi ba nga dugg ci lëndëm. Mm-hmm. lëndëm googu li koy sabab mooy ñàkki làmp. Mm-hmm. ñàkki làmp bu amee ñu soog laa mën a def li ñu la bëgg a def. mais léeg-léeg lumière wuyu du ko bëgg. parce que nit mën nay toll fële gis la. mën nañu am lu bari loo xamante ni bii bu lumière amee rek ragal mën na am. donc le fait que mu manque kii loolu yëpp. liggéey la yoo xamante ne bi tamit comme li nga expliqué sànq mairie bi waran taal làmp mbedd yeeg yooyu war nañ ko def mhm. parce que yooyu bokk na ci mbir yi mhm. waaw nit tamit comme yow ni nga xamee zone boobu xam nga pareen saay am na euh, mbir yu bari yoo xam ne bi nit a nga koy fànq mhm. pareen saay nit ñi il faut que ñuy euh, xalaat yenn yi donte li am am na ba pare mënoo kiiwaat waaye xanaa dabu rek pour wax tamit les autres nit ñi pour ñu xalaatee nenn le dafa am secteur yoo xam ne soo fa dëkkee ak tamit nga représenté lenn euh, am na yu bari yoo xamante ni bii war nga jéem di ko moytu di moytu moytu dafa bokk ci mbir yi pare pare saa yi gis nga dañ lay wax ne am na koo xam ni mës nañ ko invité muy jàngale euh, nan la ñuy moytoo agression nan lañ koy defee waaw donc loolu da koy enseigner moom mu ne agression dafa am yu bari yoo xamante ni yow parfois yow yaay teg nit ki ci situation boo xamante ni bi dina la mën a agressé mm-hmm. maanaam yooyu nag yow boo ko prévoir peut-être mën nga loolu xam nga di nga gis nit dugg ci oto mm-hmm. def nii téye téléphone am ñu këf ko mm-hmm. mais moom moo may kooku téléphone bi lu mu ko agressé comprendre wala nit féete nii yorub saak féete ci teritoire bi téye ko kooku aussi da nga koy jàngal ne ko doo téewee loxo bii boo nekkee ci kii boo doo def nii quoi comprendre mhm. yooyu mooy yi nga xamante ni moom la doon enseigner quoi tey jii am na ay bërëb yoo xam ne boo fa demee nga xam ne sama koñ bi ma dëkk de mhm. euh, xaw na doy waar parensaay mën nga sax fanaani feneen mhm. yooyu yëpp ci moytu la parce que da ngay wax ne insécurité am na dëkk bi def ni parce que comme li nga expliqué ne noonu la kii bi ne kon ko fa dëkk xam na ko comprendre am na yoo xamante ni bi ba parensaay nit fi mu dëkk du ko ragal nit ñee koy ragal. Mm-hmm. mais moom du ko ragal quoi yooyu parce que dafay tàmm gis environnement beeg yooyu day dem ba du doon ci moom dara. Mm-hmm. am na ay jamono su ma boobu la ñuy wax géejaway dafa garaaw et cetera boo masaan jógee eh, jàmm ga di dem géejaway dañ naan heure bii ngay dem géejaway maanaam ñoom dañuy tiit. Mm-hmm. te man boobu pour man géejaway dara amu fa quoi. comprendre parce que xam naa fi may wàcc xam naa fi may jaar. zone yi may jaar maîtriser naa ko mais ñoom. bu buñ jéggee géejaway rek zone ya nga xamante ni bi fa la dégg crime yi foofu la ñuy yaakaar ni euh, foofu la yëf yi ne mm-hmm. te fekk ne parfois euh, du demee noonu donc yooyu mooy yi nga xamante ni bi euh, moo ci ne am na leneen lu ma bëggoon a wax de mais ci wax ji parce que lii may wax nii yëpp doon kii li ma bëggoon wax dëgg sax fàtte naa non dafa am dafa am leneen lu ma wax loo xamante ni est-ce que ci lii am na fi amaat fi defe naa Kër Massar foofu non waaw non Kër Massar bi am na leneen sax lu ma bëggoon a wax dama foo nekkoon rëcc naa ko parce que dama doon ñëw fii rek pour euh, kii ci kiiwu Assane bi waaw nii xaw ma si moom laa doon kii mais du agresseur yi nit ray ko ah agressé nit ray ko te bañut te bañut maanaam fii xeexoo ñoom la bëgg a wax Assane dañuy agresseur moom bu la rayee rek mooy da ngay xeex ak moom waaw xam nga bi yii moom am na yoo xamante ni bi parce que expliqué cas Mariama Sané defe naa noonu lu tudd hmm. Hmm. nga xamante ni bi faatoon nañ ko foofa aussi tamit wëlbatikuwaat encore tamit lu mel nii am hmm. donc Euh, enquêtes yi war nañ ci war nañ ñu ci dimbali parce que tamit boobu dafa mel ni ba léegi euh, li nga xamante ni bi waaw moom ba la fa la lépp doxe tàbbi hmm. géej donc jafe naa ni nañ xam ni daal ñi nga xamante ni bi faatu nañ ay sénégalais lañ d'abord hmm. ñu considère leen comme ay sénégalais police bi police su Sénégal la la nga xam ne moo ci war yëpp ñu daal di koy def incha allah sunu borom euh, mën na loolu. ay dëgg-dëgg la mu bëggoon wax nag fàtte naa ko. foo ne tey. nga train vingt. xam nga ni lii xam nga ni lii kenn mësu koo gis. dëgg dëgg fàtte dafa tey foo ne. lii ma doon wax di yëpp dama doon solal bu kii rek mais du woon lii laa wax. yow ba tey foo ne tey. jaaxal na ba de. daa mel ni koo fi nag tey non maa ngi fi. mi ngi fa mais mais dama euh, wëndeelu fële laa wëndeelu wëndeelu baa sori quoi. <laughs> bu ndeel baa sori kay. ndeel baa sori waaye du aywa.